focus baa ngi dooga a neex njuuma noo sant mu ne wele yow xam nga ci ñi nga dugg xam nga affaire bi leen la ñun ñun ñiñ fal xamuñu leen ndek ñun naa Ousmane rek la ñu xamoon mais ñun ñi ñu fal ñun groupe bi ñu fay fal ci bopp réew mi ñun ñu ngi leen di doog a commencé découvrir benn par benn piano piano léegi nag yow euh, euh, temps marem yow xamoo ci ñi nga dugg yow ci ñun nga dugg ñun sénégalais yow ñun ngay tëkku maanaam ñun ngay wax ne yow maanaam képp doo permettre kenn mu jàkkaarloo yow di la saaga pourtant yow temps marraine bokkoo woon ci xeex bi yow dañ la mës a épargner parce que yow yow dañ la mës a jàppee nit ku yaru yow mosuñ la boole ci geer bi yaa ci bëgg boole sa bopp nag léegi yaa ngi dugg ci sunu garde yaa ngi dugg ci sunu 18. ok loolu dinaa ñëw yeggali ko beneen bi ci topp mooy El Malick dafa am lu mu wax lu am solo nee na nañ ko ko laajal ba xam président Macky est-ce que dina ñëw battre campagne am loolu question la. beneen bi ci topp mooy ki nga xam ne moom moo ko exilé woon muy Karim est-ce que ñoom ñaar dinañu ñëw loolu question la léegi.